alhamdulilah ma santati borom bi ma xamal bamb mi maslaab morom su ma salaab maa ni na dal yonen bi gën moo ñoñam ak saabaam yaa xeetam wëgën ba ma jógee cëg jëkka màkka laa na moon ak medina ak saam leke mbàkke laa jëmoon ndikete leerik bàmba gee ma ñoddi woon may dox di pem pemi bayala ma ko won magama booleeg moom mu yéema ci nelaw wan ma melaw yonen ba dootuma selaw jomul bu doom xamee nga ne lal maamam ngem baay ba baax na doom ja def na jaamam bu ko defee nga ne baay ba wan ko nga ne li maamam ba mu sax ci way ko moo tax ba kaylee wane xar baaxi nebi ak i ngëneelam ndax mu bekki wane bi baaxuk sëriñ mooy taxa xam baaxuk rasuul ngir xaw su mooy seetub rasuul bu leen ko suul booy seetu ndoom seetoog boroom si meloom ku lay meloom mbir lee nga ràññay soloom may wane xar baaxi yo nen yi dul waroog la góor ya taalifoon fi nun mu xëy di képp teere bu suuxal teere waaw asalaamaaleykum mbokk julli asalaamaaleykum mbokk taalibe ñu ngi santaat borom Touba bu baax di wax jërëjëfe borom Touba di ñaan Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw ñun ñoo jógee Louga ñëw fii ànd ak Moukhaddamatoul Khidma ci liggéey bi nga xam ne dañuy sayt war ma jumaay Touba wax dëgg yàlla ñii ñu àndal ñu ñëpp Louga lañ jógee ñëpp ñu àndandoo ñu def nañ fi daanaka juróomi fan war fee defaat yeneen juróomi fan fas yéene nekk fi ci juma ji lépp luy ma ji ñu fexe ba taxaw ci loolu daal mooy suñu tànk yi wax dëgg yàlla fii ñu dal ni ci biir juma ji sax la ñu dalal ñu ñu dalal ci biir juma ji fi lañ nekk wax dëgg yàlla waa mu xaddamatu xidma ñu ngi ñu taxaw taxawaay bu am solo waaye ñu ngi ñaan uh, suñu borom dimbali ñu lépp li nga xamante ni moom lañ yaakaar ci ñun suñu borom defal ñu ko ñu am ci ndam ñu ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax lépp li nga xam ne méngoo naag juma ji daal ñu ci taxaw ànd ci soxna yi soxna yi ñoom ñooy nekk ci wàllu soxna yi fexe ñu defar rangi colo yaayu muuraay yeegi yëpp ba lépp jaar ci yoon góor yàlla yi ñu ngi nekk ci wàllu góor yàlla fexe ba ñi xam ne dañuy wàccee tuba yi ñu yéegee tuba yi fexe ba ñi dañuy wat wati si bon ñu fexe ba ba leen ñi nga xamante ni dañuy sol ay culotte xeet yu mel noonu ñu fexe ba waxtaan ak ñoom bañ dellu mën a yeesalaat ñëw taxaw gi fexe ba góor yàlla yi ak soxna yi jaxasoo bi ñuy jaxasoo ñu taxale leen jumaay tubaab bi li ñu ciy bañ mooy maanaam euh, dañuy dañuy li njëkk mooy jaay lu wër ci jumaa ji dañ koy tere yelwan ci buntu jumaaji ji dañ koy tere dañuy wax ne képp ko xamné da ngay yelwan nga jéggi tali bi féete ñi nga xamné dañuy wéccé di muy manké ñoo dañ koy dañ koy tere fi ci jumaa ji jumaaji ji ba ci barabu mam Cheikh Ibrahima Fall dañuy tere képp ku fa taxaw di jaay wala ngay màjjal lu commencé ci teen ba ba agsi fi ci ba agsi ci jumaa ji ñi nga xamné dañuy dugg ci biir jumaa ji di di yelwan tamit dañ leen tere donte sax nuro nga ko xamné ku ko ku ko ku yelloo loolu la dañuy tere ku dugg ci jumaa ji di di yelwaan beneen bi dañuy tere ku yor caméra di filmer te autorisé wul la ko amoo autorisation bu la jox pour nga nga filmer dañuy tere photo góor ak jigéen dañ koy tere ci jumaa ji dañuy tere lépp loo xamante ni si nii lu mel nag arme la maanaam nga yor jaasi wala paaka wala xeet yu demee noonu dañuy tere ku ko yor fii ci jumaa ji waaw wax dëgg yàlla suñu gars euh, liggéey bi ñu def fan yi suñu borom dimbale nañu ni ba jàpp nañ fi ñuy yor ay yor ay jaasi japp nañ fi ñu yor ay paaka japp nañ fi euh, ñu xamne dañuy def naka sudul non nga xamne yak rek mo leen fi doon waye ñi ñu andal ni di walu koy bëgg gën bëgg borom tuba mo leen dimbali ba lepp lo xamanteni sayer la fi fex nañ ba japp nañ ko soxna yi tamit am nañ njàmbarte bu wér wër ci liggéey bi ñuy def fex na ba ñu ngi dimbali soxna yi ñuy dugg fofu mo amuñu fa benn cas ndax soxna yi wax dëgg yàlla jàmbaar lañ te ñu bëgg li ñuy def lañ may ngi jógee Tiwaawan waaw sant Serigne Touba rek di ko di ñaanal képp ku ñëw ci magal gi yalla señ tuba defal li nga bëgg di ñaanal aussi sama yaay ya na fi yalla may gudd fan ak wër di ñaanal sama goro sama borom kër aussi yàlla na ko may aussi xéewal gu sawan bawar dédé dédé sant nañ bu baax bu ñëw dugg nañ wax dëgg yalla amuñu benn jafe-jafe man ma ngi joggé dem la joggé tuwa wa dem la joggé tuwa wa wa sant nañ bu baax xéew magal señ tuba xéewal kassa la yalla ñi képp ku magal rek yalla la xéewal yalla la sëñ Tuubaa defal lo bëgg billahi mina seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin man Mouhamed Mbaye la tudd bok ci délégation bi jógee Louga bok na ci Louga ci kurel kàdd ga fa Serigne Touba jaron en 1895 fofé la la la la la la la lëkkaloo ak liggéey bi bi khadim Seexul khadim ñëwee Louga woowaa Louga ñi leen dafa am liggéey buñ ma dénk te liggéey ba dafa tënk ci mu xaddimatul xidma bi nga xam ne si moo war a saytu jumaa ja liggéey bi nag génnul lii maanaam hébergement ak accueil ak surveillance ndigal lii nag dafa jóge ci Serigne Saliou Mbacké mu tedd ma muy orma yi nga xam ci moom la jumaa ji laaj teggin yu jumaa ji laaj taxaw bi ñu war a taxaw ci jumaa ji moo waral suñu jataay moo waral suñu teewaay moo waral ñu ñëw fii ci liggéey bi nga xam ci mooy liggéeyu Seexul Xaddim bi nga xam ne si ku nekk xam na ne tey jii mooy añ ba mu ñu digaloon nit ñi woon toog leen ma liggéey ñëw ngeen añee añ boobee di jumaa ji añ boobi di daare kaamil añ boobi di tey jii loo dégg rek li ñuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah te muy dégg rek loolu añub sëñ Bàmba la loolu daal moo waral ñu bëgg nag àdduna bi xam lenn ñun ñi dañoo am benn mission mission bi lenn la dafa fu mu jëm bëgg nañu 14 régions yi nekk ci Sénégal dina fa am normalement ben équipe bu fa nekk samp fa fas yéene tàggat région bobu ndax bu ëllëgé suñu joggé suñu dikké fi ci Touba xam lépp lu fi ak fi Sénégal bu dajé dana wara dam dugg ci biir Afrique tagat Afrique gep bañu ñu xam si dekkup sëñ Touba bi li lañ fi nangul li lañ ci bañ suñ ca génné dina wër aduna bi ba ñëpp xam bërëbu seigne nous bi deuk seigne bi bi ni bañ li lañ fi nangu té liñ ci djublu objectif lu la dañoo bëgg ëlëk mission bi day mat fi dikkati di dox ca loola buñ fi de par média internet bi télévision yi lepp xam à notre disposition pour information bi nous danañ ko jallalé ba liggéey sëriñ tubaab bi lii lañ fi bëgg lii lañ fi bañ ndax sëriñ Tuubaa ni demee sëriñ Tuubaa moom lépp ma international loolu daal moo waral mbooloo mi te ñu ngi ci bëgg nag na ci ñëpp jàpp ci seen xam-xam na ci ñëpp jàpp ci seen doole na ci ñëpp jàpp ci seen alal ba ñun ñëpp ñu làq ci ngërëmal sëriñ Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom tubaa Tuubaa jërëjëfe Seexul Xadiim dama ñëwoon màggal si tey. waaw noo noo gisee màggal gi tey. màggal gi macha allah ñu ngi sant yàlla ba ñu ko fekk. Mhm. Euh, di julli ci Seydina Muhammad salaa salaam mhm. di yàlla yàgg ko fekk màggal gi wax dëgg yàlla heure bu ñu fi ñëwee mhm. nañu ko daaw ba tax toujours dañu sawar ñëw ndax da la dinaa màggal gi ndigal la te murid ndigal la foog moo tax saa su ne dañuy gën a sawar di fi ñëw niñ koy fekkee nag moom macha rek ba amu ay jafe-jafe bi ngeen di egsi fii amuñu benn jafe-jafe waaye nag dañoo bokk dimanche bi ah. yoon gaaw yoon mu xey di kem téré bu suugal téré yi moy alquran ci foore yi gannaaw ba xar na weeru yaari weer ñaan de ya penku ni ba suux keroog bu weer doju bayi sen la fa wel no doj wa tim wa ca des doj wa caaw sowaam la tiim la tim yu rëy daa xar baax yu rëy ci alquran ngir le sun tewal ci jumaay tuba ji moy ma manam di saytu jigen yi di len dimbali ci muuraay yi lepp lu ñuy bañ ci jumaa ji ñu len koy téré ma ànd ak sama xalé tuut tank yi ñu am yar lool ami ñaké wuñu kenn kessa di maslaa eh, soxna yi di leen téré lu démé né mes ngalangal ko wala nga baña a sa muray jaaro si bakkan dañ ko fi téré waaw jaaro ci bakkan dañ ko fi téré ak si tuñ yi ak baña defar muray gi ak itam ñu baña lepp lu señ tubaa dëppawul ak bëgg-bëggam rek lolou dañ koy téré soxna yi wa dañ koy téré ci jumaaji wa manam nak sama sama tank yi ma andal dañ ni bala nga mëna yar nit ki da ngay yaru dañu yaru jox ñepp cër jox ma cër nak def ma yaay nak ba ñëw ba légui yaay rek lan may wax wa ma di leen sant di leen gërëm nuy fassiyene yéene liggéeyal Serigne Touba ndax lool rek mo nu ñor ñun amuñu ku dul Serigne Touba ñu ku dul Serigne Touba soxna jaaru bi sa maam Cheikh Rafa loolu dégg lañ bëgg waaw léegi nag sëñ Xaadim mii ni koy sant bu baax di ko gërëm ndax lii lépp moom moom moom la ndax moom ku la woo ci sëñ Touba rek bëgg na la waaw ndax ñun sëñ Touba rek lañ am soxlawuñ leen bëgguñu leen waaw mooy sunu lépp fépp di sunu lu nay fu ne waaw ba tax na ñëw di jàppale leen ci daayira ci Xaadimatul Xidma waaw def liggéey bi ñu sëriñ Touba sant ak ni mu ko bëggee waaw ñu ñaan yàlla yal nañu yàlla jàppale musal ñu ci saytaane ba ni ko sëñ bi bëggee ñu doxale ko noonu waaw waaw jërëjëf. bu yàlla dolli gam ña xam ni ñoo gëmoon yéefar ya naa li njabar la moom la man ñu gam ña naa njabar du daj àdduna ji xarug dënam gi neef it bekkoo na ci xarbaaxiyanan xarbaaxiyanan wax ca baytil max as dem maa ngi jóge Mbàkke Mbàkke waaw as dem waaw ba wax dëgg yàlla ndamuñ benn jafe-jafe bi ñu ñëw fii ci màggal gi màggalu ren gi daal lu dul neex rek ak toofeex waaw màggal koog jàmm ñëw yàlla indi leen jàmm delloo leen nag te ñu dal tey ñëw fi nga xamne dëkk seigne Touba dëkk bu sel la ku fi ñëw ku ne nga selal wa loolu dal lañuy ñuy wax taalibe waa tonta contane nañ trop bu baax a baax kontaan nañ bu baaxa a xar baax yi yeneen xar baax yi yeneen wax ca baytil maqdis te mosulu gis ak ba taxul dara dess jibril a fab neen ba indil ko màkka mosolo leen ko fii la màkka mokke jéngoona it jant ba bés mu bañ a soow bañ a ma wax ak si muy door a soow rañaan nga la ñoom ñëw ni leen ñi jéggi woon bés bi ma wax ngeen seenu leen